maaleykum góor euh, euh, bi tur naka la góor Ablaye Dione góor gi góor Ablaye Dione yaa tudd Ablaye Dione waaw euh, fii nga nekkoon ancien chef de village fii ci Ndingler waaw yéen seen nawetu daaw naka la demee seen nawetu daaw béyuñu benn bépp daaw ñu béyuñu dara dara dara dara parce que dañu tere suuf si sadar mi yaa nga fa ba set soo fa demee tey léegi léegi nga fekk leen foofu ñu toog Ndingler gii ngay gis te ren xiif bu métti ba dina fa am ren. xiif xiif bu métti dina fa am ndax tool yi ñu doon yaakaar pour béy ko béy ci dara dara fet benn fepp suuf di béy ñu ko foofu ren. nun ci suñu bopp fu ne wax nañ fi fu ne jaar nañ fa mais dara dara dara dara dara ñoru fa. mais ñuy foogoon ni président dafa xool nañ leen delloo suuf si ngeen liggéey dundee. mu ba tey delloo suñu suuf si mu ngi ko teg fi ay gendarme bët bu set ñu nga foofu di toog. ay gendarme ñoo fa nekk ay ay ay gendarme ñoo fa nekk. ñun ñag ñun ci suñu bopp. dañu xaar a xaar xaara a xaar xaar a xaar beren gii defuñu dara ci tool yi dara dara dara baaxoo ren dara dara béy ñu ko boobu ren te tool yooyu la ñu gën a yaakaar parce que suuf si ñuul yi moo man a béy loo xam ne di nga ci mën a dund mais soo ko béyul rek doo man a am loo dund nun nag sonn nañu lool lool lool lool lool lool fi mu tey ndax ru jot na ndax ru ñu ngee mois de tey dugg na mois de mars avril ngay ñëw ah juin mu ngi ñëw juin mu ngi ñëw léegi loolu yëpp su ñëwee to góob eh, eh, ruujoo defoo dara xam nga foo foo jëmati nun nag lu ñu taxaw daal léegi daal mooy nañu delloo suñu suuf si dëgg dëgg dëgg toog nag ba ñuy dem bay xeex ak gendarme yi gal suñu ko amee it du nekkul suñu bare nekko suñu coobare nag mu nit ki nag manul xaar xaar xaar xaar xaar xaar di de dee ak xiif te yow ngay nekk foofu di lekk ak naan ak lu la neex ñii nag ci coono ba métti loolu ëpp naa def nun nag sonn nañu ne sonn nañu de nun ñoom moom fokk ñu dem ci suñu tool yi nag ren gii ren gii daal su fekkee daal ren gii foog ñu dem ci suñu tool lu ñu de def daal lu ñu def na ko moom moom fokk ñu dem foofu ci suñu tool yi. yéen taaw euh, daaw bayu leen. Euh, ren ruuj jot na te ruujagu leen. ruujaguñu dara ba léegi gendarme yi ñu ngi taxaw. mu ngi taxaw foofu mënoo fa def dara maanaam kon yéen mënu ci leen ci jot. mu mën cee ban appel wala boog ban ban message ngay wax président de la république pour que ñu delloo leen seen suuf ngeen bay dunde bay dunde bi nañu delloo suñu suuf si nun daw nañu suñu waar man mii ngay gis élection balee bokkul ak élection bii ren dama doon ànd ak booy boo xam ne dañ koy wax Biram Payk mais kud la nekkoon sax fii université Samba Faye ñoo àndoo doon andi campagne ca otoom pour rank rek ma bëgg Macky Sall falu diggante tukulóor ak séeréer mais loolu daal yaakaar gisu ko gisu ko sa ndax su ko gisoon du teg suñu tànk eh, suñu tool mukk tànk teg suñu tànk eh, suñu tool it teg leen tànk bu mën ci béy mañ tuur def dara lii métti na torop métti na torop torop torop torop maa ngi wax ne nag sama numéro 77 859 00 54 ku ñu mën a dimbale ren gii Ndingler sama numéro baa ngoogu soo ma woowee di nga ma jot mu wax ak dëkk bi dugg na fii génne na fi. waaw est-ce que est-ce que aussi Babacar Ngom am na loo koy loo koy wax moom itam. moom ci boppam eh li ma koy wax de xam nga man xam nga moom Baba kii Macky Sall moo ko jàppale man ma soo ko xoolee daal nga xam ne daal baax dëgg moom am maag moom sax wax ndax nit ku mel noonu mosuma koo gis ci àdduna. mukk mukk mukk mukk mukk ndax nit koo xam ne amul moom ci boppam lu mu am foofu mat na suñu tool yi ñaar mbaa ñett mat na suñu tool yi ñaar mbaa ñett comme doy lu wul nag wax dëgg aw mag moom wax Macky daal daal na ma jox sama tool yi rek ñu béy moom moom mu dem moog yàllaa xam. su ngeen béyoon ren kon kon xiif bi dina am ci dëkk bi. day gan amaat kay gan amaat mooy am kay ndax dina am tey. ndax am na ba pare am na ba pare am na ba pare di am na ba pare am na de balay am na. am na de. am na de mhm.